jërë ngeen jëf dañu ne kuy jooy munta nax kuy jooy Karim Wade nga koy jëm nag xool leen xët mu njëkku la ca kaso bu rëbës ba ko denc moom Karim Wade di ko toppee teranga julewul fa la bindee ab bataaxal jaare ko ci awakam di sàkku ci askanu lu ñu wax ñu jëfe ko góor ca wax ja non ngir kilifa yi nekk ci réew di wax ba noppi di ko weddi jeex ci réewum Sénégal l'observateur nañu Karim Meïssa Wade donte ma nga ca kaso bu rëbës yi terewul boole ne boppam ci làng gi nga xam ne moo ëmb ñu jug taxaw ne référendum yi ñaar fukki fan ci weeru mars yi du fa jàll mu di waa front non coalition gor ca wax ja waa c mu di cadre de concertation de l'opposition ak waa front patriotique défense république ñoom ñëpp l'observateur nee nañu ku ci nekk ba du mënoon lépp mu di Karim Wade ma ngay rafetlu la ngay liggéey wal faj nañu Karim Wade jox na gaañam yi ndigalu ñu woote non populaire xëy dëggal xibaar boobee Karim Wade nee na non libération nañu yóbbante galgal ubbul làmp ne Karim Wade ba muy wax loolee ma ko waxee ca kaso bu rëbës bu alal ji mu yore moom Karim Tène Nelawol di mbirum traque des biens mal acquis yéenekaay bi xëyee ab communiqué bu bawoo ca présidence de la république jóge ci ñeenti avocat yi layol nguurug Sénégal ci diggam ak Karim Wade ñu leen di nittali keroog ba ñu janook taskatu xabaar yi yëf yaak na mu demee foofee sax yéenekaay bi nañu fa la xamle li ñu jële ci Karim Wade ba xayma ko ci fukki milliards ak juróom-ñaar ñaara ngi ñoo xam ne bu ñu moytuwul tama du ngir waxtaane intifada gi woon keroog samedi ca maison du parti la ñu fa tënkee nañu bokk na ci plainte contre x buñ ca noppee taxawal commission boo xam ne day déglu Khalifa Sall ak Bamba Fall la Sénégal nañu léegi nag waa parti socialiste fa ñu toll moo di di weerante ak di wërante Ousmane Tanor Dieng nañu ci xët mu njëkk journal bi li ma xam ba xam ko daal moo di ay daan yu tar ci wàllu politique ak wàllu yoon dinañ ko teg ci ndoddal ñi nga xam war a tekki ndombal tànkam Tanor dafa war a démissionner anki dina nañu waa parti socialiste ñoo ngay wër ña salfaañe woon seen dajam keroog ma Abdoulaye Wilane mi porte parole parti bi nañu ci xët mu njëkk journal bi ñi def loolee ak ñi leen ko santoon nañu wàcc te xam ne mbir mi lu ci waay góobe woon rek danga ko gar Jean Baptiste Diouf nañu ci journal bi Bamba Fall wuyu la wandaal la te bandi la populaire nañu criminel yi doon saax-saaxee foofee ay saay-saay ñoo fa ñëw songu saal bi bëggoon a lu toll ci téeméeri nit ak juróom-ñeent fukk ak ñaar di ay membre ci bureau politique bi te loolee duñu ko seetaan duñu ko bàyyi mu jàll képp ku ci mere Macky Sall baa nga am loo bëgg a ak moom xaaral ba élection yi nga dem lijjanti ko ak moom moom Macky Sall ma ngay lijjanti nu mu tasee kër Khalifa Sall mu di coalition taxawu Ndakaaru direct fa nañu Macky Sall ki gaayam li fexe jamono ñuy wootee Alioune Ndoye maire bu Dakar Plateau sori wu ko ñoo ngi yoot kii di Babacar Mbengue bu Hann bel lépp rek ngir ak wéy ci référendum yi la tribune nañu référendum yooyee waa Touba xippe xool lañu ci am amuñu ci defar amuñu ci yàq Touba néewuñu wëy néewuñu noo noo gi bu ko yóbbulee wëy ji Macky Sall nee na nañu fexe ba aw turam nañ ko keccet ci mbir moomee ba mu set wecc wax jaa ngi ci l'observateur journal bi nañu ma ko waxee démb ci télévision bu ko Dubaay TV Macky Sall ne yi buñ ko lëkkale jëlee ko ci juróom-ñaari at yóbbu ko ci juróomi at Macky ne loolee ba léegi yéene jaa ngi fi